téléspectateurs yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëfati lu bare bare bari ñi ngi tey fi nga xamante ni moo di abattoir bu Dakar Sogas ngir nag ñëwal leen ci dossier bu nga xamante ni bu am sol ndaxte nag ci wàllu urgence la ñu nekk ba tey santé buñ ko waxee wax wan Health dafa englobé lu bare bare bari moo waral tey ñu intéressé wu ci li nga xamante ni mooy la santé des moutons wala la santé de l'animal mbokk loolu tey moo ñu indi ci ñu wax ak yéen sur la médecine vétérinaire wax ci veto waaye tamit ñëw ak yéen ci loo xamante ni dina leen soxal ndaxte contexte oblige ñi ngi ci waajtaayu tabaski seen tànneefu xar nan la war a demee est-ce que xam ngeen diggante mala ak nit am na feebar yu ciy dox loolu ay interrogation yu ci bari la yoo xamante ni réponse bi ci dossier urgence bi lañ leen ko fas yéene indil mbokk yi dinañ leen wan tamit. ginnaaw loolu inspection bi nga xamante ni tey ñi fi nekk nekkal fi ministère de l'élevage ñi ngi koy def mais tamit en rapport avec la santé ngir ñu wan leen nag xar mi boo ko tànnee ba noppi yan màndarga moo ci am yu lay wan ni la mën nañu njot njott lu rafet que ni wér na mais bu fekkee tamit dem na ba ñu daal di koy lottal ñu wan la tey couleuru yàpp nan la war a mel lan mooy màndarga yi ci nekk yu wane ni wér na wala wérul loolu mbokk yi la ñu fas yéene ñëw ak yéen ci seen émission urgence kon ci kanam tuuti lay doon. alors ñaa ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateur. salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñu ngi nuyu mbokku 2S yëpp man la Omar Niang. di agent technique d'élevage nekk fii ci abattoiru Dakar ñu gën koo xam ci Sogas bon tey Moussa ñu ngi lay gërëm di la niiw yaag équipe bi ngeen àndal yëpp ñëw fii tey ñu wan leen ci comme dañoo jublu ci euh, tabaski naka la ñuy tànnee xar ak xool euh, xar bi buñ ko ginnaaw biñ ko tànnee ba pare nan yan préparation lañ ci mën a def ngir buñ koy rendi ak rend bi nan lañ koy jaarale ba nga xamante ni si lépp lu ci war ba ba mu mucc ayib dañ koy dañ koy def mais ci loolu dañuy commencer d'abord ci li ñuy wooyee ante mortem mooy xar bi sur day taxaw ñu xool ba xam ndax amul dara loo xamante ni si euh, ci ay signes yu ko demee ni ay feebar ak yooyu ndax nekkul ci moom waaw wala déet. d'accord kon nag sans plus tarder. ñu commencé ci loolu. ok waaw a ah, xar bii lañu am ah ci taxawaay xar bi dañ koy def vue de loin mooy dañuy taxaw ñu seetlu taxaw seetlu bi nag. ah da ngay xool xar bi lu mu bindoo ba xam ndax taxawaay bi jekk na mooy li ñuy wax en bon point mm-hmm. ndax am na wala amut mm-hmm. mais ci loolu gis nañ ni xar bi am na état d'en bon point léegi yeneen yi nga xamante ni si moom moo aju ci inspection bi mooy ñu xool les différente muqueuses maanaam bët yi xool bakkan bi xool gémmiñ gi ba xam ndax amul dara loo xamante ni si da koy génnee waaw wala déet ah ñu tàmbalee ci bët bi ñu xool dañuy def nii rek ndànk ubbi gis nañ ni bët bi mi ngi ci comme norme yi ñu wax ne noonu la war a mel noonu la mel bu dee ci bakkan bi tamit mu ngi nii tooyul tooyaay boo xamante ni si dafay mel luy génnee liquide yu demee noonu parce que yooyu yëpp dafay wane ni xar bi mën nañu njort ci moom bu fekkoon ne dafa am tooyaay ka ni dafa feebar wala dafa am lu muy kii mm-hmm. gémmiñ bi aussi buñ ko xoolee mu ngi nii ah mu ngi nii lii boo ko xoolee da ngay xam ni xar bi xale la foq na daal waaw gémmiñ gi tamit amul dara loo xamante ni si da koy génnee lu war a mën a tax ñuy njortu ne xar bi dafa feebar wala kii noonu donc kii moom mën nañ ko bàyyi ñu dugal ko ci biir pour ñu jàll ci phase bi nga xamante ni sii moom lañ ko war a rendi ko pour après mën a continuer leneen li nga xamante ni si moom la ñuy wooyee l' inspection post mortem. Mhm. donc xar bi moom apt na pour ñu rendi ko. ginnaaw ba nag post inspection importance ante mortem mooy nga xool ay signes yi nga xamante ni si xar bi ci bi muy taxaw. am na ci feebar yoo xamante ni si bu fekkoon ne da koo am ci taxawaay bi danga koy xam. mais am na yeneen feebar yoo xamante ni si ñoom dañuy faral di laxu loolu mënoo koo xam lu dul ni dañu lottal xar bi ba pare ba fees ko dindi lépp li nga xam ne dañ ko war a dindi ba pare nag doo ko saytu euh, ci biir euh, ndawal bi ndax am na ay feebar wala amul feebar. léegi yan feebar ci taxawaay bi lañ mënoon a gis. pour nga wax ko téléspectateur yi. waaw ci feebar yi moom ay signes la rek yoo xamante ni si dafay génn signes yooyu nag mooy comme li ma la wax ci cavité yi la ñu mën a xool pour xam ndax cavité yooyu noonu ñi ngi dégager ñi ngi am signes yooyu wala amuñu ko mais nag si loolu tamit am na feebar boo xamante ni si moom mën nañ koo xam lu ko demee ni que gaal ñu gën koo xam ci wolof muy feebaru waga. lu ko demee tamit ni feebar bi ñuy wax euh, euh, équipement contagieuse feebar la yoo xam ne day am ay picc yuy am ci au niveau fii nii ci gémmiñ bi wala boog mu am ci euh, côté yii lu wër gémmiñ gi rek la lay lay am bu boobaa di nga xam ndi kii kat dafay kii yooyu nag ñoom la ñuy faral di wax les maladies yi nga xamante ni si c'est à la peau mm-hmm. maanaam ci der bi lañuy la ñuy waaw leneen nag yeneen yi nga xamante ni tamit mën nañu nekk ay feebar yoo xamante ni si seeni signe day génn mooy gémmiñ bi dafay faral di tuur ndox wala bakkan bi di sotti ñendaxit bu sottee yooyu nag dañu mën a xam ne ah xar kat am na loo xamante ni si moom moo ko dal waaye loolu pour ñu am ci confirmation il faut ñu lottal ko ba def li nga xam ne moom la ñuy wax inspection post mortem pour ñu mën ci am lu ñu leer. bu buñ ci amee nag lu ñu leer c'est à partir de là la ñuy tranché wax ni xar bi ah kon nag feebar ba ñu njortoon ca ba ñuy def inspection antémortem ah ba ñu defee post mortem bi confirmé ne ko. d'accord waaw ante bi bu ñu waxee ante rek mooy avant ñuy lottal. Mhm. bu ñu lottalee ba pare si la ñuy wax post mortem kon nag nit ñi téléspectateurs yi ñuy déglu. bu ñu déggee loolu rek nañu xam ne ante mooy ginnaaw avant ñuy lottal. poste mooy bu ñu lottalee ba pare. Mhm. kon maanaam bu ñu la déggee ci ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi war a dem daral mhm. ci lii mooy mandarga yi nga xam ne ci lañ war a bàyyi seen xel. Mhm. bu fekkee dañuy jënd xar. ngir bëgg koo daal di jullee xaru tabaski. effectivement alors fi mu toll nii joxe nga avis favorable. li ñu war a def moom mooy topp la processus. way d' accord ok léegi léegi yow da nga koy da koy da koy dugal. léegi dañu dem jëli waaw fii rek xanaa ñu expliquer ci li nga xam ne moom mooy fees bi bon lu ñuy wax euh, suñu mbokk yi rek ni leen ah fees bi dañ ci namm booy teg xar bi nga teg ko foo xamante ni si dina sori suuf bi parce que wàllu hygiène bi dafa am solo donc comme wàllu hygiène bi dafa am solo ñu teg ko foo xamante ni si dina sore ak suuf bi ba nga xamante ni si lu lépp loo xamante ni si dafay tax ndawal bi du mucc ayib dinañ ko mën a éviter waaw fees bi tamit dafa am yoon parce que lépp loo gis fii nii dañ koy soxla muy der bi dañ koy soxla moo tax il faut ñu jox ko koo xamante ni si loolu moom mooy liggéeyam mu def ko mooy le boucher ki nga gis nii moom mooy euh, def fees bi mais da koy jaarale ci yoon waaw leneen li tamit loo xamante ni dañ koy wax mbokk yi toujours ñu koy éviter mooy di essouffler maanaam di ëpp xar bi ak sa gémmiñ loolu moom nañ ko nañ ko éviter di di xar bi ak gémmiñ parce que comme nit mun na yor ay doomu jàngoro yoo xamante ni si moom du ko xam bu ko souffler ak gémmiñam mën na ko def ci ndawal li donc loolu vraiment ñu ngi koy bàyyiloo xel nit ñëpp ne kuy fees nga bañ a jël sa gémmiñ di ko ëpp pour que affaire bi mën a jël air léegi nag ginnaaw bu ñu jógee ci inspection antemortem bi. waaw mooy avant ñu koy lottal ñu xool ko saytu ko ba gis ni àtt na pour ñu dugal ko. ok dugal nañ ko rendi ko fees nañu. Mhm. bu ñu feesee ba pare nag c'est de là mais toujours est-il vétérinaire bi lu rôle am mooy durant lépp li ñuy def moom dafay xool. waaw parce que dafay surveiller ndax affaire bi ñu ngi wàccoo ak li nga li yoon santaane. d'accord ginnaaw nag bi nga xamante ni si lottal nañ ba pare def fees bi léegi dañuy def ce qu'on appelle inspection balaa ñuy def inspection bi nag moom dañ koy wax parce que lii fi mu toll nii dafa am ñaari affaire yoo xam ne ñoom ñoo fi nekk mooy. ce qu'on appelle les abats rouges muy res bi. waaw di kër bi di yeneen yi nga xamante ni si ñoom ñoo ànd ak ñoom. waaw dañ koy dindi ñu teg ko ci table bi comme ni ñu dindee biir bi aussi ñu teg ko ci table bi. d'accord parce yooyu yëpp bu ci nekk dañ koy saytu ba xam ndax ah. amul jàngoro bu ci nekk. wala nag mucc na ay pour ñu bàyyi ko ñu mën koo consommer. ok waaw léegi nag xar bi mi ngi nii. bon yooyu yëpp def nañ ko. Hmm? a ah, li nga li ngay njëkk a def li ñuy def mooy dañuy xool ci biir nekk amul taab walla amul dara loo xamante ni si lu ko demee ci ay mbuusub ndox yoo xamante ni si ay doomu jàngoro lay def. Ah. yooyu yëpp dañ koy xool. waaw mais bu xoolee nii. xar bi amul yooyu yëpp vraiment amu ko. waaw. d'accord léegi nag ginnaaw bi ñu xoolee loolu ba pare. Uh-huh. làmb nañ ko aussi. Uh-huh. amul fenn foo xam ne dañ fa daj ay taabak yu mel ni noonu. Ah, bu amoon day feeñ ci yaram bi ko waaw parce que loolu yëpp da nga koy saytu. Uh-huh. ba xool ba xam ne ne bi kat ah mucc na ayib ngay soog a nag def li ñuy wooyee. exploration ganglionnaire ou bien inciser les nœuds ganglionnaires. Mhm. nœuds yi mooy li ñuy faral di wax ci wolof càqaar. càqaar waaw waaw parce que loolu dafa am importance. Mhm. ci po ci inspection post mortem loolu moo ci gën a am solo. Mhm. parce que loolu dina la jox information yu bëri yoo xamante ni si xamoo ko woon. ci inspection ante mortem bi. donc sans plus tarder ñu def incision boobu noonu. d'accord incision bi fii. yii la ñuy wooyee les ganglions de Poplioté. Uh-huh. lii def ni ñu génnee ganglion bi boo koy dagg booy def incision bi da ngay def une incision transversale uh-huh. maanaam danga nga koy dagg transversalement lañ koy dagg uh-huh. pour nga mën a xam lépp lu nekk ci ganglion bi nga mën koo xam Euh, parce que dañuy xool ndax ganglion bi ndax amul kontinu waaw comme lu ko demee ni ki ay taabak yu demee noonu wala amul ndox boo xamante ni fii ndox bu anormal la. Mhm. wala boog moom ci boppam ni muy toll mu am volume boo xamante ni si day doon volume bu jéggi dayoo. Mhm. te loolu pareel ñaar bu ko amee rek mooy ne euh, feebar mi ngi ci. mais comme ni lii nii. ci benn bi ñu dagg nii. nañ ne kii moom. aspect normal la joxe. Euh, amul benn contenu boo xamante ni si war na mën a tax ñu njort ni xar bi am na feebar. waaw wala déet. léegi kon comme dagg nañu bi dañuy dagg beneen bi nekk ci beneen tànk bi. waaw waaw. toujours beneen ganglion bi moo nekk. beneen ganglion bi moo nekk nii. toujours nii nga koy téye. Uh-huh. boo ko téyee sa loxo sa ñaari baaraam yi ngay dugal ci suuf ah. su ko defee nga mën a def une incision transversale gis nga donc fii moom amul lii beneen yi mooy ñu dagg yii ganglion prescapiaire yi donc lii jox nañu information ni ñu vraiment xar bi mën nañ ko libérer c'est apte pour la consommation. maanaam kon léegi lii waaw yow su ma la déggee. Mhm. donc bi ngay def nii. Mhm. léegi bu dee ñun ñi nekk ci kër yi. waaw war a rey xar yi ci tabaski bi wala événement bu mu ci mënti doon. Mhm. Euh, ki nga xamante ni xamu ko. kon léegi moom nan la war a def. ki nga xam ne xamu ko dafa war a rapproché wu ci ñi nga xam ne ñoo ko xam. Euh. wala boog comme tey jumtukaay yi bëri nañu. parce que tey ku nekk mën nga filmer sa xar nga yónnee ko sa vétérinaire. wala koo xam ne day liggéey ci lu demee noonu. nga wan ko juste pour mu kii la comme nag tabaski moom occasion la boo xamante ni si bon mënuñoo dem fépp di defal kii parce que ñi ren di day bëri. <laughs> te tamit mënuñoo dem fépp di dem di defi inspection beeg yooyu li ci gën rek mooy loo am loo xamante ni si yow yaa ngi ciy ñaaw njort laajte ki nga xame ne moo ko xam comme ça moom mu mën la cee gindi d'accord léegi yàpp ni mu mel nii couleur bi est-ce que répondre na par rapport ak yéen critères yi ngeen di xaar si répondre na par rapport ak critères yi ñoo yàpp xar nii la war a mel nii la mel d'accord effectivement maanaam couleur la rouge rouge uh-huh. mais rouge bi nu muy mel rouge blanc rouge pâle la quoi naka lay demee léegi génne nga les abats waaw ñoo ngi nii alors abaay boo leen ko déggee mooy li nga xamante ni moo nekk ci biir maanaam mbàq yi res bi ak yooyu contrôle bi fële c'est bon donc c'est à consommer alors fii lañ ci mën a expliquer waa lii moom juste dañuy teg abaay yi ñoo nekk lii la ñu wooye les abats mhm. mooy cœur bi poumon bi xëtër bi mhm. ak foie bi foie bi mooy res bi dafa naa lii moom moom la faaleen yi ak jaañeen yi moom lañ gën a fonk waaw waaw ak lii mooy res mais li ñuy xool ci lii mooy ñu xool affaire bi nu mu nu mu mel. Mhm. ñu def ce qu'on appelle la palpation mooy da ngay làmb. ba xam doo am dara loo xam ne mën nga ko daj. parce que ñoom ci ngooñ yi ñuy lekk ak loolu mën nañ ci lekk ay particules bu fekkee ne particules yooyu dañ fa nekk mën nga koo daj. Mhm. bu ko defee loolu dañ koy dindi. Mhm. pour bañ a gêner ñi nga xamante ni si ñoom ñooy consommer viande bi. donc lii buñ ko xoolee wax dëgg. mucc na ay pour moom tamit ñu libéré ko. pour ñu mhm. consommer ko. beneen bi mooy les abats blancs ñoo nekk nii. Mhm. ñoo nekk nii lii moom tamit da ngay def palpation. Mhm. làmb xool tamit nu mu mel ndax amul ay picc walla dara. bu amulee lii lii même ci kër gi. waaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy def rat. lii nii lépp mën nañ ci fayal seen bopp. pour xool waaw léegi tamit nga xool fii tamit même chose la. ok waaw. donc comme moom tamit mucc na ay vraiment. Mhm. Ah, dara nekk ci loo xamante ni si war na mën a tax ñu koy téye. d'accord donc moom tamit dañ koy libérer. d'accord pour wax ne apt na pour la consommation. Mhm. alors donc yàpp bokk na ci li nga xamante ni Sénégal. Mm. liñ koy consommé dafa bari trop trop trop. Ah. moo xam xar ak beneen bu mu ci mënti doon. Mm. contexte bi nga xamante ni moom la ñu nekk. Mm. après contrôle. anti mortem bi nga def ak post mortem bi nga xamante ni def nga ko. lan la ñu mën a jàpp tey loo xamante ni mën nga ko wax les sénégalais bi nga xamante ni consommation dañ koy faral di def lu bëri ci lu jëm ci wàllu ay xar ak yaa ngi dégg ndaw. waaw loolu daal mooy li nga xamante ni fii. Uh-huh. moom la ñu mën a wax euh, nit yi. ni leen nañuy faral di indi seen xar yeeg yooyu ñu leen koy abattre fii su ko defee lépp loo xamante ni si euh, war na ci dinañ ko def dinañ gën a approfondir avec l'inspection post-mortem pour bépp information boo xamante ni si mën na lënt ci nit gi ñun dinañ ko xam te bu boobaa bépp matukaay boo xamee ne moom lañ ci war a jël dinañ ko ci jël mm-hmm. waaw ginnaaw nag inspection bi toujours kuy inspecté dafa am benn sanction boo xamee ne moom moo war a am mm-hmm. mooy maanaam ndax li nga xool saytu nga ko ba pare ndax baax na pour ñu consommer ko wala boog am na loo xamante ni sii am na ci ba tax dañ ko war a jàpp wala dara mais ci li nga xamante ni moom lañ def léegi gis nañ ne inspection bi vraiment xar bi ñu inspecté mucc na ayib ci inspection antemortem bi information yañ fa amoon ba ñu ñëwee ci inspection post mortem bi confirmé na ko uh-huh. donc euh, bii moom apte na pour ñu libeere ko sur le marché. léegi ban étape à quel moment ngeen di def cachet bi ci moom tampon bi ngeen di def. waaw ginnaaw bu ñu defee inspection post mortem bi ba pare. si la ñuy sëy si la ñuy def tampon bi pour wane ni. Uh-huh. xar bi apte na pour ñu consommer ko. d' kon bépp xar bala moo génn fii nii foog mu am tampon. il faut mu am tampon. d' accord alors donc kon téléspectateurs yi. am na leneen tamit loo xamante ni si moom mooy gën a wóor. Uh-huh. mooy ce qu'on appelle le d'origine et de salubrité okay. pour wane ni service bi uh-huh. def nañu inspection bi jox nañ la këyit boobu uh-huh. wo ilaa képp bu mën a ñëw di def contrôle ci wàllu liggéeyam uh-huh. yow di ko mën a tàllal këyit boobu pour que mu xam ne ah këyit bi kat ñi ko def ils sont habilités à faire liggéey bu mel noonu. donc loolu tamit dafay gën a confirmer li nga xamante ni si moom lañu moom moom la ñuy def. d'accord kon donc Omar Niang sant ko gërëm ko nekk na technicien. d'élevage fi nga xamante ni moo di Sogas ñi ngi ñëwoon mbokk yi pour xoolal leen li nga xamante ni moom mooy ndawal rawatina ray bi nga xamante ni wala wala lottal bi nga xam ne dañ koy def ci mala bi waaye tamit xoolal leen mala bi nga xamante ni dañ koy tànn ginnaaw tànneef bi yan mandarga moo ci am ndaxte mala mën na feebar feebar mën na ko am wàll ko ki nga xamante ni mooy nit waaye tam bu ñu jógee ci loolu xoolal leen li nga xamante ni moo di ndawal li nan la war a mel parce que ñi ngi am ak jubluwaay ci tabaski ngir nag ngeen xool risque yi nga xamante ni lañ leen di bañal ci lenn li nga xamante ni bokk na ci xar yi nga xamante ni ñu ngi koy gis buñ fi jógee dañuy ñëw ci docteur Anne ci moom la ñu jëm xool un ci li nga xamante ni mooy la santé aussi du mouton waxaale aussi sur la médecine vétérinaire waxaale aussi ci li nga xamante ni tey mooy les zoonoses comme mbokk yi ni nga xamante ni noonu lañ leen ko waxee woon ñu ngi leen di toppal seen émission urgence ginnaaw ñu doon def lépp donc agent technique d'élevage mi ngi ko doon def mu di ñaa alors c'était sous la supervision du médecin vétérinaire ki nga xamante ni moom moo di docteur Anne alors docteur gis nga processus bi nga xamante ni topp nañ ko yëpp mm-hmm. bu doon wax tey jii nii sur la médecine vétérinaire mm-hmm. lan nga ñu mën a xamal ak ban importance tey jii nii la am par rapport à la consommation de la viande surtout si l'on sait que y a des zoonoses maladies yi nga xamante ni man na bàyyi ko ci mala bi dem ci nit ki. waaw waaw moom moom maa ngi leen di nuyu sant. waaw importance médecine vétérinaire si importance médecine vétérinaire euh, dafa bëri daal mais suñ ko bëggee concentré si santé publique moom dañu naan euh, vétérinaire bi dafa am rôle. si waa wàll santé publique maanaam si si si euh, maanaam euh, bonne santé. population maanaam physique de l'homme bonne santé mentale. ak social de mm-hmm. donc loolu moom mooy santé publique vétérinaire. Mm-hmm. moom mooy wàll bu nga xam moom mooy cër bu nga xamante ne connaissance maanaam xam-xam médecine vétérinaire dana ko jox. si santé publique. lu lu lu loolu la. léegi nag dana ko jox si ay ay animaux ay mal yu nga xamante ne deewaguñu mais dana ko jox aussi ay mal yoo xamante ne rey nañ leen ba ba ba pare. dina ko jox aussi ay produits d'origine animale comme ay nen ay ay jën ay euh, euh, meew. ak ak lem ak lépp lu nga xamante ne c'est c'est un produit d'origine animale. d'accord sant bi dina dina dina ko toppatoo waaw. alors tey ñi ngi jëm ci période tabaski wala événement xam nañu ni ndawal. Hmm. niñ koy faral di consommer dafay faral di bari. Hmm. lan nga mën a wax sur des maladies yi nga xamante ni dafay dal mala. ba hmm. pare di dal nit. waaw alhamdulilah rabbil alamin léegi tendance bi mooy ne éleveurs yi dañoo am am habitude di. traité seen seen animaux yi ba balaa tabaski loolu moom dana wàññi lu bëri si yenn feebar yu nga xamante ne yi ma ma mala yi kuy yi kuy tabaski yi dinañ ko am euh, yenn feebar yi bu bëri duñ ko faral di gis. mais su fe en dehors des des tabaski kooku moom bëri na ay feebar yu nga xamante ne. même su vétérinaire bi su xoolee mala bi nii nii rek ñu mënu ko gis. foog autopsie ñëw wala inspection post-mortem à ñu rendi mala bi ba pare ba ñuy ba ñu kii ko dépouiller ko ñu mun a xam ne mala bi déedéet dafa feebar. yu demee ni ay tuberculose. wala yenn saa nga gis mu sot e, e, exactement su fekkente ne si par exemple si nag yi moom la ñu ne nekk nag yi ba ak xare si suñu concentré wu si nag yi bari bëri na ay feebar nga xamante ne day nëbbu si yaramu nag bi te yenn si feebar yooyu noonu ñoo xamante ne dañoo nëbbu si yaramu nag bi yenn yi day joge si mala dem si doomu aadama uh-huh. mun naa la si si limal tuberculose uh-huh. te mooy responsable tuberculose extra pulmonaire seelam mm. mun naa la si susciteel eh, eh, eh, kii nu mu tuddati cysticercose boo xamante ne moom mooy indi teeña si si maanaam doomu aadama. d'accord am na yeneen feebar nga xamante ne si ay xaj ay animaux de animaux de compagnie. yooyu. comme comme comme encore toxoplasmose bu nga xamante ne yooyu jigéen yu wanul la yi dañ leen di def test obligatoire. si hmm? yooyu. Hmm? sida yooyu nañ ko jëlee si xaj ak yu mel noonu. même si affaire xar ak yeneen ak yeneen feebar yu nga xamante ni euh, mën nañ ko sàmm. d'accord alors tey lu jëm ci wàllu tabaski bi. Hmm. tey dernières heures yi nga xamante ni moom la ñu toll. Hmm. ñu war a a lottal li nga xamante ni moom mooy xar mi nga xam ne moom la ñuy jullee mhm. yan conseil ak recommandation la ñu moom ngay joxe te nag di sàkku ci population yi nga xamante ni ñoo koy consommé ñu man ko respecté comme douze heures avant nee nañ xar mi war na am jet mhm. boo xamante ni jet hydrique la maanaam mhm. dina naan ndox waaye du lekk waaw waaw heure yu instant jox woon nañ ko bu yàgg mooy ne nañu bàyyi di traité mala yi ak mi médicament. ok loolu moom waroon nañ ko bàyyi di depuis deux mois sax. Mhm. surtout si antiparasitaires yi parce que dafa lu wuute lu lan mooy am différence diggante médicament vétérinaire ak médicament humain mooy ne le résidu maanaam délai maanaam délai d'attente mooy diir bu nga xamante ne. Eh, dernière administration c'est-à-dire jëlee benn garab ñu jox ko mama la administration boobu ba ba ñuy jëfandikoo eh, ndawalam wala meewam wala nenam war na am foofu pour médicament bi jeex si si kiiwam bi daal. ok organisme. ok loolu amul si si doomu aadama. Uh-huh. léegi loolu loolu su fekkente ne sàmmante wuñ wuñ ak loolu loolu. mun nañu am loolu la ñu indi am ay euh, résidus d' antibiotiques am ay résistance aux antimicrobiens ak yeneen ak yeneen ñu nga xamante ne day dal doomu aadama indil ko ay lor yu bëri bëri ñoo xamante ne duñ ko mën a uh-huh. contrôler léegi buñ ne waaw beneen conseil bi mooy ne alimentation bi soxla wut ñuy forcer ay yenn alimentation yi na nañ ko jox alimentation yu normal yoo xamante ne du waaw parce que su fëree loolu du ko yokk mais da da koy waay wàññi. d'accord beneen mooy su fekkente ne dem nañu ba si veille ci tabaski bi au moins douze heures avant ñuy rendi xar bi war nañu bàyyi di ko jox ñam ndox rek ba. ndox rek baax na si. bàyyi leen ci xel bu baax. parce hmm? que importance bi mooy ne su fekkente ne da nga ko jox par exemple ay ay ripaas douze heures avant. Euh, ripaas bi mënut si seey si si kiikiom bi parce que day du junj waaw léegi su fekkente ne kii wut soo ko feesee dèjà mun na fàcc microbe yu nekkoon si si biir bi mu mën beneen bi encore microbe yu nekkoon si si biir bi comme que digestion bi commencé na mu mun naa dem si si yàpp bi indil ko problème conservation ak yeneen ak yi. yeneen d'accord waaw. léegi kon xar ci gàttal tam. buñ ko lottalee maanaam bu ñu rendee ba noppi. oui du dañuy rendi rek lakk lekk. da si ñun da am ay ay am ay technologie alimentaire. waaw mais lu mu mën a cons xamante ne c'est praticable pour tout le moom tout le set bi hygiène bi. waaw nañ sàmmanteeg moom. set bi waaw. set bi loolu moom ñooy Sénégal yëpp mun na nañ koo sàmmanteeg moom. Mm-hmm, mm-hmm. suñu dee leen saako ñu def set bi léegi yeneen bi nga xamante ne techno eh, technologie alimentaire moo ñu ko imposé te ñun suñu habitude alimentaire kii kiiwu ko te day jafe trop pour ñu appliquer ko. Mm-hmm. loolu moom mun nañu mun nañu woo ba wàññeeku. comme di naan yi yàpp bi nañ conserver au moins vingt quatre heures wala deux semaines ak yu mel noonu. soo ko waxee sénégalais yi c'est pas évident que ñu kii mais set bi moom loolu moom c'est pire mooy jar moom moom sax moom moo jiitu ji jiitu yëpp. d'accord mais pour denc yàpp bi euh, lu demee ni abaa yi mbaq yi ak yàpp bu xonq bi kenn waru leen boole. wa voilà déjà su fekkente ne rend na nañu kii bi ba ba ba kii pare mala bi lu ñu soxla si togg ñu ñu ñëw jël ko balaa ñoo conserver <coughs> nañu jël. na nañuy def ak euh, nañuy partager kii bi ndawal bi quoi. Mhm. ñu xool comme par exemple su benn famille soo xamante ne un kilo lay soxla si toggam par jour na jënd ay ay sachet mu jël yàpp bi mu dee mu sa partage ay un kilo un kilo. Mhm. mu takk ko mu toog ko dugal si congélateur am. d'accord. abaa yi encore c'est la même chose léegi su ko kiiwee à chaque fois su fekkente ne soxla na dawal bi day jël lu mu soxla mu mu mu ñëw kii koy utiliser ko leneen lu mu soxla wut mu ñëw di mu ñëw di denc ko. alors donc ñu sant ko gërëm ko moom docteur Anne mi ngi fii nga xamante ni moo di Sogas. ci ñoom la lépp di jaar processus bi ba consommation bi nga xamante ni jëm na ci yàpp bu sel te set ngeen mën ci daal di jot li nga xamante ni nag mënuñu ko ñàkk bañ a wax il faut ngeen xam ko. xam ngeen ni tey bu ñu waxee ñu bëri seeraas la ñu xam sogaas yaa ngi dégg ñi ngi koy dégg waaye nañu xam ni fii nga xam ne fi la ñu nekk depuis 1956 lañ ko teg c'était avant l'indépendance bari na fi ci loo xamante ni mën nañ ko lim ci matériel wala ñoo xamante ni ñi ngi fiy liggéey bu dul ñëpp daanaka bërëb bi moom moo leen mag te ay jamono ñu ngi doon dégg lu jëm ci wàllu délocalisation pour que ñu am daanaka benn centre boo xamante ni buñ fay def traitement bu mel nii war na gën a moderne gën a méngoo ak jamono donc aux autorités c'est un message bu nga xam ne moom ñoom mën nañ leen ko lancer parce que xam nañu ni wax nañ lu jëm ci premier problème mu hygiène wax nañu xam nañ lu jëm ci wàllu modernisation mais tam wax nañ ci leneen loo xamante ni tey Sogas war na gën a mën a méngoo ak loolu kon mbokk yi di leen wax rek ni leen tabaski jàmm dinañ leen ñoom ñu ngi leen koy ñaanal tey wax. ni ngeen moytu bu baax ci lu jëm ci wàll wi nga xamante ni moo di lu leen di lor mbokk fayee ni ngomee ni ak ñi nga xamante ni ngayee ni wax ko njaayee ni moytu leen seen loxo ñu sant leen gërëm leen ci beneen numéro urgence la ñuy ñëw ak yéen laata tabaski wan leen yàpp bi nan lañ ko war a consommer ak nan lañ ko war a lakke